Wasana ازدهاد نيلا كريم عليه معلوم يزيد شكري بأقلامي وقلبي وجسدي Serigne Saliou sëñ Bàcc dana ci ñëw waaye daayira bii ana jaaja dañoo yàgg ñoom ñuy ay jàmbaar daayira bii Serigne Saliou Mbacke mu baax ma sa turandoo wa sëñ Bàcc mii jox ko ndigal muy bala dëkkub Serigne Touba bii Serigne Saliou ni bàcc lii ngay def dem man mii la waroon bale dëkkub Serigne tubaab bi du n'importe qui nag ku jóg baleel Serigne Touba dëkkam bi déedéet Serigne Touba kay tànnal ba boppam kon daay dem Matlaboul Fawzayni set setal Touba amati ngeen ndam heure bu ngeen cantee bàyyi fa bës ren jii nag bës bi nag da ngeen koo téye ay waay ki defar barabu Serigne Fallou Mbacké bii. nga xam ne si ni daa gudd rek waaye kon dinaa ni fàll awa bu sa jax réew ma càmmiñal maree ma a soxna mbennum sëriñ fàllu la tërës laa koy àggale la tërës loolu lépp dama koy tënk la tërës yéen xam ngeen xam naa xam ngeen ma xam naa leen invité d'honneur yi xam nan ma la ngeen gis lu ngeen mus sa gis kon bàcc bu sëriñ Saliou ne ñi nga xam ne nii ñoom ñooy bale dëkku sëñ Touba yi ci quartier yi nga xam ne ñoo nekk ci Touba yëpp tàmbalee ko ci Touba mosquée Daaru Xuddoos guy mbind ba Touba yëpp daj tey jii jigéen joo xam ne nekk nga ci quartier wala ci koñ jiite fi ay nit di bale ñoom daje nañu fii tey jii ñu toll ci ñaat téeméeri maire di ay groupement ak ñett ak fukk ak ñett ak ñett waaw 203 ñoom ñoo daje fii tey ngir nag confirmer loolu moom moo tax ñu demoon seeti leen seeni quartier xool nu ñuy liggéeyee bi ñu demee fekk nañ ne ñu ngi bale seeni koñ mais également ñu ngi fóotal daara ya nga xam ne ñoo nekk ca koñ ba di bale jàkka yi di fëgg moquette yi ba ñu xam ne ñii kat seen quartier set nañu ñu sélectionné ci 163 war leen a jox bale door loolu nag le 13 janvier lay nekk ci pencum Guy Mbind loolu nag ki ci nga xam ne ni moom moo ñu ci accompagner mooy sëñ Ablaye Sylla Ablaye Sylla setu Touba ñor na ko parce que gis nañ ne saa su nekk mi ngi dugal loxoom ci cetu Touba màggal Touba téeméeri camion nangam la fi indi cet gi mu ngi fi indi ay brouette ay râteau ay pelle lu nekk mu ngi koy def hmm? gis nañ tamit lu baax li nga xam ni tam mi ngi koy defal waa Touba waaw ndax sëñ Fallou ku ko defal ku ne waa Touba nga defal Cheikh Sidi ko defal ku ne waa Touba nga defal te gis nañ ne loolu mi ngi ciy góorgóorlu kéemtalaay kàttanam wax na tamit ni dinañu accompagner rawatina jigéen ñi nga xam ne ñooy bale. dimbali leen ci ay bale mais également indi na fii yónni fi rakam rakam ñëw indi fii loo xam ne nii dafa wax nii dafa bëgg bis boobu le treize ñu woddu jigéen ñëpp ñu teew fa teewaay bu rafet incha allahu ñoo ngi jàpp ne neuf mille personnes dinañu teew Guy Mbind waaw daanañu mobiliser lu toll ci six mille personnes wala nangam waaye yaakaar naa ne ren neuf mille personnes danañ fa ñëw kon nag loolu yaakaar naa ni doon baasu cent mètres baasu cent mètres lay doon ndax ñun dañ daan jël koñ ba koñ baas ko mu fees ba mbedd mépp fees kon nag ñun duñu ay politiciens waaye ay nit nañu ñoo xam ne nii nag ah képp ko xam ne yaa ngi dugal sa loxo ci mbiru setu Touba na nga xam ne ñun euh, danañ la sargaal danañ la jaajëfal loolu moo tax ñu ne euh, bu bis boobaa ñu tuddee ko Ablaye la ngir li mu dugal loxoom ci cetu Touba moom nag tàmbali na yabal na fi rakkam mi ngi ñuy toog beneen bi teen moom mooy ñun waa Touba gis nañ ne mënuñu am accès ci banques yi parce que bu ñu amee suñu ay projet bu ñu demee ci banque yi dañuy laaj lan mooy seen garantie est-ce que am ngeen kër gu ngeen mën a garantie soo nee waa am naa kër ñu ne la amul kër gi mënuñu ko garantie parce que benn titre foncier moom moo fi nekk gis nañ ne pétrole bi ak gaz bi mi ngi ñëw ci su war nañu am ay projet ñun waa Touba kon loolu incha allah dinañ invité dem ci ba ci préfet sous préfé dem ci maire bi waxtaan ak ñoom mais également suñ fa jógee nag doog a dem ci suñuy kilifa mel na suñ Bass Abdou Khadre dem ci sëñ mu Mountakha waxtaan ak moom pour xool daal nan nañu war a mën a jàppalee waa Touba waaw wax dëgg yàlla nag ku fi amati sa projet ñu mën na ko financer hmm? loolu nag gis nañ ne sëñ Saliou mii am na lu ñu ci wax xam naa ne après dina dina dina ko jotal léegi kon loolu doy na tamit ba tey ci ne eh, ñoom ñi ngi dugal seen loxo ci eh, eh, jàppale waa Touba loolu moom mooy sababu ñu gis ni euh, wàllu assainissement tamit war nañ cee euh, euh, dugalaat suñu loxo wax ci loolu yëpp lu ci nekk daal bëgg nañu daal organiser après ay séminaire waxtaan ci xool ñun lan nañu war a mën a def ba loolu yëpp ñu mën ko aboutir def ko ci defin boo xam ne nii macha allah lay doon waaw kon Euh, loolu moom mooy déclaration bi nga xam ne moo ñu tax a jóg le 13 nag incha allahu nañu fa yéenee daje pencum guy mbind ngir euh, euh, waxtaane fa lii nga xam ne nii moom la wax waaw kon jërë ngeen jëf. ba ma leen nuyoo di leen ziyaare bu baax di kontaan ci teewaay bi ngeen teew fii di wax si kàddu jigéenu Matlabul Fawzayni set setal Touba. di nuyu nijaay bàcc bu baax di ko siyaare bu baax di nuyu gan gi sëriñ Saaliw ak ki ko fiyebal boo demee nga joxal ñu ko suñu nuyoo di la wax ne ñun moom ñu ngi ci nijaay ginnaaw nijaay bàcc nijaay bàcc ku ñu yéene la te bu ko amoon duñu manqué dara woo nañu ci mbalem dëkkum Touba bii te leneen lu mu am bokk na kook ñun lekkul dara bàyyi ñu demul fenn tamit bàyyi ñu di la wax ne dal dalal jàmm si daayira bi ñu ngi la fi doon xaar yaa ku mel ni yow kon boo ñëwee rek mën nañu wax ni alhamdulilahi rabbi alamin amuñu ko du nijaay bàcc moom la ñuy topp suba ba ngoon jot fu mu ñu woo foofu la ñuy wuyu ci lu mu nekk ci loolu lañ nekk lu mu la wax rek ci jigéen ñi bale mbedd yi rek am na lu des bépp coono rek ñu ngi koy daj ngir bale mbedd yi ngir setal dëkkub sëriñ Touba bi dañuy bare suñuy koñ bu dimaasee mu xool kër kilifa gu fi tilim mu nañu nañ fa daje ji day génn Touba sax di dem di bale ji yeneen kër ndax bëgg rek topp ndigal li ko sëñ Saaliw joxoon ñun nag ñu ngi ci ginnaawam ginnaaw ku mu nekk ñu ngi ci ginnaaw kooku lu mu ñu wax ñoo ngi ci loolu may wax jigéen ñi ci ginnaaw ñu gën a góor góorgóorlu te gën a jàpp si daayira bi nit booy ànd ak moom na ngay ànd moom te yàlla tax yàlla du jeex yàlla mu ngi fu ne bu fekkee yàlla moo tax ngay ànd ak doo mas a bàyyi nit waaye kuy ànd ak nit ngir dara soo amul dara mën na am nga seeti leneen ku fi ñëw te yàlla rek tax di nga fi jëleel lu xawe sa njort ku fi ñëw ngir leneen nag boo ko gisul mën ngaa yokkat nañu ànd te yàlla tax ak bale dëkk bi moo ngi nii président sëñ Saaliw li ngeen ñu jàppalee gis nañ ko te lii mën naa tax boo ñu diggee leen li olof Njaay wax ne ku la jox ndékki jox la añ bu la diggee reer danga ko gëm kon boo ñu tegalee lii jàppale ñu ko boo ñu digee leen tamit ñu ngi yaakaar loola te ñu ngi xaar nag te ñun ñoo ngi ci bale dëkk bi ba ba fu mu yem rek ñoo ngi ci bale dëkk bi ak ku ñu ci fekk te loo ñëwee ñu ànd ci ak yow. kaa ndox sab koñ na nga woo Abdoulaye Diop yaatal mii incha allahu rabbi dana andi seetar na ndox ba fa nga nekk mu duyal la duyal duy la duyal la sa waa koñ mu duy la duyal waaw dégg nga li ma wax de mu duyee la sa basee ba mu fees duyee la sa waa koñ Ablaye Sylla sa waa ji jaaja ñun nag ñoo ngi ci Ablaye Sylla léegi yéen ñëpp xam ngeen numéro président Bathie su ngeen ma woowee bu ngeen ma woowee man xam naa seeni kër xam naa fu ñuy jaar ba fekk leen fa dinañ leen ko wax dinañ leen ko wax bu ñu woowee Saliou bu ñu woowee Saliou comme ñu orienté bu neexee yàlla oto ba dana ñëw ba. bu neexee yàlla oto ba dana ñëw ba seen i kër. loolu. da ngeen koy bàyyi sama loxo. da ngeen koy bàyyi ci sama loxo. te ku ci soxla ndox daal. te ku soxla ndox daal. nga woo ko. soo ma wooyee. boo woo bàcc. man dinaa xam yoon bu ñuy jaar. man dinaa xam yoon bu ñuy jaar. ba ndox mi ñëw ci yow. yaakaar naa loolu. moom moo gën a gaaw. ngeen di làmbatu. ñoom bu ngeen leen woowee. ca xamuñu fu ngeen dëkk. ca xamuñu fu ngeen dëkk. dëkk gi dana jafe. ba bu ñu ñëwul. ba noppi bu ñu ñëwul. coow mën na caa am coow mën duma ko ci bëgg. waaye damay bëgg. lu ci waay soxla ngeen wax ma ko. man ma topp ko. ba wax leen te la ma la ma xam ne moom laa leen ci war a wax waaw kon loolu la. <laughs> inna wali sëriñ jërëjëf Serigne Touba sëriñ Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul maa ngi leen di ziar yéen ñëpp mbokk taalibe yëpp di leen jox seen wàccuwaay di jiital ci nuyoo bi. Euh, président sëñ Bàcc Diba mii nga xam ne nii wax dëgg yàlla kenn demul mu des jàmbaar la jàmbaar la ci yoon wi te ku bëgg lu baax la wax dëgg yàlla di ci di ci di toftal ci nuyoo bi euh, ñii nga xam ne nii moom la bokkal liggéey bi suñu wayjur yi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di di di toppatal nuyoo bi sama délégation bi ma àndal. ànd ceeg samay jàmbaar. Mm-hmm. ñoo xam ne ay jàmbaar lañ ci liggéey bi nga xam ne nii moom la ñu président Abdoulaye Sylla dénk. Mm-hmm. di di di di ziar bu baax a baax a baax di beral nuyoo nag jigéen ñi. Mhm. waaw ndaxte wax dëgg yàlla yéen a waral coow li. Mhm. yéen ay jàmbaar ngeen ku gis seen seen seen seen détermination bi gis mhm. engagement bi ngeen àndal nii wax dëgg yàlla ñu mat a jàppale ngeen jigéen ñi Touba dañoo mat a jàppale. te loolu président Ablaye Sylla da ciy amal liggéey bu am solo wax dëgg yàlla di nit koo xam ne nii nit ku am yéene la ci askan wi nit ko am yéene la ci yoon wi. dëgg yàlla ku gis ni muy doxee gis ñi nga xam ne nii moom lay taxawoo yoon wi di ko taxawoo ñi nga xam ne nii ñoom lañ yaakaar tey ak ëllëg loolu xel man naa caa dal sëñ bàcc léegi la koy wax li nga xam ne nii mi ngi koy def ci dëkk bi moom ci li ñu yëg laa la wax li ñu yëg te xam gëm naa ni biir na ma ni li ñu yëgul moo ëpp wallaahi ci lu baax loo xam ne nii moom da koy def ba pare sax du ca du ca seet jaajëf du ca seet jaajëf ga moo xam ne ni mën na laa defal yow yow mi muy defal doo ko mës a dégg wala doo ko mës a teg bët kooku nag day def te yàlla tax mm. day def rek te yàlla suñu borom tax ba tax na ñun waa Touba wax dëgg yàlla amel nañ ko njukkal mm. nit ku jàmbaare la am murit bu taxaw ngir dimbali aw askanam la mm. waaw ba tax na loolu nga xam ne nii mi ngi koy def ci dëkk bi yàlla na daje ngërëmal Serigne Touba loolu rek lañ koy ñaanal ba tax na daal wax dëgg yàlla bis bi nga xam ne ni ñi ngi koy dëgmal bëgg ci ànd ak yéen mm-hmm. na seen xel dal mm-hmm. lépp loo xam ne nii war na ko ca bu mm-hmm. soobee yàlla ci kàddoom lay waxee dana ko ca def bu soobee yàlla leneen li ñu ci yokk mooy képp koo xam ne nii koñ ba nga nekk danañ ñëw saytu ko na nga koy toppatoo danañ la danañ la danañ la danañ la indil euh, cadeau bu am solo xool nañuy toppatoo koñ ba ak yéen ñëpp kuréel yi fi taje yëpp 203 kuréel yëpp groupement de femmes yëpp danañ xool saytu nan ngeen di entretenir fa ngeen nekk bu soobee yàlla président Ablaye Sylla dina leen jagleel ay xéwal yoo xam ne nii di ci mën a jàppandal bu baax a baax a baax a baax bis bi ñu jëm nag moom lii nag moom tàmbali na rek yëre yi tàmbali tàmbali kese la yëre yi moom tàmbali rek la wax dëgg yàlla yeneen i xéewal yu kawe kawe kawe ngi ñëw mu ngi ci yoon wi incha allahu rabbi bis bi daal sunu bis la ñun ñëpp ñun bokk taalibe yi ñu ànd ko rek def ko def ko mbirum murit rek waaw def ko na na mu jagee rek bu soobee yàlla ñu yaan ci lépp lu ñu ciy def rek ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabbil aalamiin liman kaana li bil juudi wa wasafu nusuuri wa taayidi wa yasiira dalida min alwaasir wa haabi fawa nasiru amiri ladaa seydi wa muksi wasiilati xadiman lo wa